dinga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar nos plateforme jërë ngeen jëf yéen ñuy suivre Feeling Dakar TV mbégte ak contentement la ñuy àndal di euh, janook yéen li nag daal di doon rek ap xibaar boo xam ni daal euh, mi ngi jugee ci Sans Limites TV bu joxe xibaar bi rek ñu ngi ñuy xamal ni dal ki nga xam ni moo di euh, le premier ministre de la République du Sénégal di Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamee ni rek fal nañ ko ba noppi rek mu jiite gouvernement bu yees bi nga xam ni rek Bassirou Diomaye Faye moo nekk le président de la république moom nag jamono ji daal Ousmane Sonko daal dinay dem rek daal di dëkki fi nga xam ni rek foofe mooy nekk këram di petit palais di primature bi nga xam ni rek mu ngi nekk fële ca Ndakaaru diggante palais de la république hôpital Le Dantec nga xam ni rek moo di assemblée nationale waaye nañu jàpp daal ni ki démb la Ousmane Sonko rek daal di rek dëkki ca këram gu yees ki nga xam ni rek foofe rek euh, lay euh, daal di euh, rek continuer mu nekk këram mu nekk nag benn petit palais boo xam ni comme ni président de la république du Sénégal amee. palais de la république noonu itam la daal di amee euh, petit euh, palais boo xam ni rek ma nga foofe euh, ca ndakaaru Ndiaye ñu fàttali rek ni moom Ousmane Sonko dey gannaaw bi nga xamee ni rek daal dina leen di tabb ci nguurug Sénégal Ousmane Sonko ak ki nga xam ni rek moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoom daal ci rek benn hôtel la ñu nekkoon ngir rek daal di xaarandi foofu le temps rek ñu daal di rek vidé sax ñu daal di saytu seen kër yu yees yooye nga xam ni daal nga foofee moo daal di rek nara nekk seen euh, kër ba fi lekk seenub mandat rek di daal di jeex ñu xam ne daal ni Ousmane Sonko ak yenn ci ñaari soxnaam yi daal di nañuy rek déménager rek jëm fi nga xam ni moo di euh, ca euh, primature bi nga xam ni rek foofu la ñu war a dëkk buñu ñu sukkandikoo ci information yi nga xam ni rek daal di nañ ci jot sans limite TV daal di koy joxe. ñu fàttali rek nii am na ab diir boo xam ni état bu Sénégal ci ab décret boo xam ni président Macky Sall daal dina koy def rek amuñu woon li nga xam ni rek moo di ab premier euh, ministre gannaaw loolu itam jafe-jafe ji fi amoon ngir rek mu daal di yor euh, réewum Sénégal moomu kott rek taxoon itam mu daal di rek indiwaat li nga xam ni moo di primature indiwaat beneen premier ministre ci noonu rek la daal di tabbe ki nga xam ni moo di euh, Amadou Ba bi nga jiite woon gouvernement bu yees bi nga xam ni rek ñi nga xam ni ñoo bokkoon ci yeewi askan wi ci jamono jooju ci euh, weeru euh, décembre euh, bi nga xam ni rek daal dinañ koy su doon nañ bëgg a dugal rek ab motion de censure ngir rek daal di dàqalu premier ministre ba nga xam ni rek moo fi nekkoon di Amadou Ba loola itam moom la ñu rek dal di euh, nemmeeku jamono ji bi nga xam ni rek porte parole du gouvernement di Moustapha Sarré waxoon na ni rek le premier ministre di Ousmane Sonko dina daal di def rek ab déclaration de politique euh, générale loola itam taxul benn yoon ñi nga xam ni rek jamono ji ñooy ku jëg politique gu yees gi di waa Benno Bokk Yaakaar ñu daal di bañ a ndax ñoom mi day jàpp nañu rek nii ñoom bëgg nañ dugal li nga xam ni rek moo di ab motion de censure bu fekkente ni rek ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko daal dinay rek def ab déclaration de politique générale loolee nag bu amee nañu jàpp ni du nekk du nekk loo xam ni guléet la ndax ki nga xam ni rek moo di Adji Mbergane Kanouté nee na daal article 86 de la constitution nee na daal may na leen ñoom ñi nga xam ni ñoo bokk ci euh, ku kujjëg politique yi bu bu fekkente ni rek premier ministre bi di jëwriñ gu bees ki nga xam ni rek moom la ñu dénk gouvernement bi daal dinay def ab déclaration de politique générale foofee euh, ca euh, assemblée nationale ñoom daal article boobee di 86 de la constitution may na leen li nga xam ni rek moo di doole doole wala sax sañ-sañ ñu daal di dugal ak motion de censure waaye nu ñu jàpp ni daal motion de censure boobee gannaaw bi nga xamee ni Yewwi Askan dugaloon nañ ko ci décembre ngir rek daal di contrer gouvernement bu Amadou Ba loole jàllul woon ndax ku jëg politique yi cinquante cinq voix cote la amoon maanaam juróom fukki euh, baat ak euh, juróom rek la ñu daal di amoon ba tax motion de censure boobee mu julee jàll waaye bi yoon nag kooku jëg politique yi dafa mel ni daal moo daal di nekk euh, majorité euh, foofee euh, ca assemblée nationale bu ñu dugalee ab motion de censure bu ca parti démocratique sénégalais daal di bokkee waaye itam ak taxawu Sénégal gi daal dañu mën a daal di rek valider boobule motion de censure bu ko defee itam ki nga xam ni moo di Ousmane ko dafay daal di rek démissionné ci euh, euh, gouvernement bi loole itam la ñu daal di euh, njot rek waaye tey ji daal ba fii ñu taxaw daal gannaaw kàddu yooyee nga xam ni rek. Moustapha Sare daal dina koy wax amagul lenn loo xam daal mi ngi daal di gën a wéral wala sax muy firndeel ni daal moom Ousmane Sonko dina daal di dugal rek ab motion ab euh, deg politique de déclaration euh, générale bi nga xam ne rek ñoo ngi koy xaarandi fii kii fan waaye daal laataa lool nañu jàpp ni daal moom Ousmane Sonko jamono ji dëkk na fa nga xam ni rek ma nga ca euh, moo tudd primature bi nga xam ni rek moom la ñu jagleel ki nga xam ni rek moo daal di nekk deuxième personnalité de l' état du Sénégal gannaaw ki nga xam ni rek moo di njiital réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar fay gannaaw moom itam Ousmane Sonko bi nga xam ni moo nekk deuxième personnalité euh, de moo nekk première personnalité la teg gannaaw ki nga xam ni rek moo di euh, Macky moo di euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay ki nga xam ni itam. moom itam moo di Yacine Fall mi nga xam ni moo nekk euh, euh, ministre des affaires étrangères et de l' intégration africaine moom itam moo daal di topp rek ci ki nga xam ni moo di Ousmane euh, Sonko nañu jàpp ni daal jamono ji moom Ousmane Sonko daal mi ngi waajal waaye tax mi ngi waajal rek ngir fexe ba këram gu yees googee rek mu daal di koy sayto geneen décision goo xam ni itam moom Ousmane Sonko daal dina koy jël mu di décision bi nga xam ni rek dañ ko jël ngir rek ñi nga xam ni ay ministre lañ woon ay ministre lañ woon bokk bokkoon ci gouvernement bu Macky Sall seen ay euh, véhicule de fonction maanaam euh, daamar yi nga xam ni rek état du Sénégal moo leen ko joxoon ngir ñu ciy def seen ay déplacement dañu ko daal di euh, delloo tey jii daal la joxoon dernier délai ngir rek ñu daal di delloo daamar yooyee am na ñenn ñoo xam ni itam jot nañu yóbbu seen oto waaye itam présidence foofu itam am na list boo xam ni rek képp koo xam ni état daf ko daal di rek joxoon oto daal di dañuy dere sa liste boobee te am na ñenn ñoo xam ni yóbbu nañ oto yi nga xam ni rek moom lañ leen aaloon ca bërëb ba nga lañ ngir ñu teg ko fa leen itam loo xam itam ña ngi koy sàkku ci ñoom mu di kër yi nga xam ni rek dañ ko euh, dëkkoo woon mu di euh, euh, villa de fonction yi nga xam ni rek ñoom ñoo ko yoroon jamono ji daal Macky Sall wala sax Ousmane Sonko jox na leen délai bu ñaari weer ngir rek ñu daal di mën a génn ca kër yooyee daal koy jébbal jëwriñ yu yees yi nga xam ni rek ñoom la daal di tabb ngir rek ñu daal di yenn yor ci yenn ay post yoo xam ni rek post de responsabilité la ngir rek daal di doxal politique bi nga xam ni rek Ousmane Sonko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 Dakar, notre plateforme d'information.